مسلم ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصحاب الحديث كتاب الله وخير الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ونعوذ بالله من النار mbokk yi gannaaw ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy def di fàtti di seet ne amul benn góor boo xamante ne jaamu ko dafay jëriñ ñàkk ko jaamu nekkul lu yore ku dul borom subhanahu wa taala ñuy seede ne wax bi gën ci wax yi mooy wax borom subhanahu wa taala mbir bi gën ci mbir yi mooy njubu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw loolu ñuy fàttali suñu bopp di fàttali mbokk yi ñu selalaat yéen incha allah yonent yàlla bi day wax ne innama al amalu binniyat wa innama li kulli mri'in ma nawa jëf yëpp mu ngi aju ci yéene yi te yàlla du fay nit ñi seen jëf lu dul a yéene kon incha allah avant ñuy commencé conférence bi dañuy jox suñu mbokk Omar Diallo mu jàngal ñu lenn ci ay aayaat ci alquran su ko defee incha allah après ñu commencé incha allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العظيم
jazakallah xeer ñu ngi gërëm mbokk bi ci alquran bi gannaaw loolu incha allah ñu ngi war a dugg ci waxtaan bi muy conférence bi nga xam ne thème bi ñu ngi ko tuddee ak tawba moom mooy le repentir wolof bi di ko wax moom mooy tuub kon thème tay bi moom mooy day aju ci wàllu tuub comme ni nga ko xamee ci alquran bàyyi na ay aaya yu bëree bëri nga xam ne borom subhanahu wa taala dafay xirtal jaamam yi ngir ñu dellu si fa moom daal di tuub seen ay bakkaar bokk na ci wa tuubu ila allahi jamian ayuha almuminun laallakum tuflihun yàlla woo jaam yi ne leen tuubee yéen ñëpp jëm ci borom bi subhanahu wa taala amaana bi laaj kaay kon bunt bu am solo la du ñu développé seen misaal ndax loolu moo tax ko donc dañ koy delloo kàddu gi ñaan yàlla dëgëral làmminam te leeral loo xam donc dañ ko jox mu exposé ba une heure vingt su paree ñu pause dem jàpp ji julli ji fii président soxna nañ dañuy julli suñu paree dinañ dellu si waat ci 14 heures incha allah danañ ko joxaat kàddu bi ba 15 heures incha allah su ko defee ñu ñëw ci wala 15 heures moins le quart plutôt après suñ ci noppee ñu ñëw ci question ak contribution yi kon loolu mooy chronogramme bi mooy programme incha allah kon li ñuy delloo kàddu bi saaf incha allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk julit yi ñoo ngi leen di ziyaara ci weeru màgg wi nu nekk muy shahru ramadan al mubarak noo ngi ñaan yàlla sunu boroom sunu jataay bi yal na ko yàlla boole ci jataay yim nangu noo ngi ñaan sunu boroom lu ñu jaamu yàlla ci weer wi mu néew mu bari yal nañ ko nangul lépp lu ñu tarxiis yal nañ ko sunu boroom jéggal comme ni ko mbokk bi waxee léegi waxtaan wi nu war a def ak yéen ñoo ngi koy def ci tomb boo xam ne mu ngi tudd ak tawba mooy tuub moom tuub nag sunu borom subhanahu wa taala daf ko wax ci alquran yonent bi wax ko ci sunnaam moo tax mawdu bi nekk at tawba fi alqurani wa sunna sunu borom subhanahu wa taala dafa wax ci alquran muy woo jaamam yi jaam yi nga xam ne dañoo def ay bàkkaar yu bare bare bare bari ba découragé jàpp ne seeni bàkkaar daa bëri ba yàlla dootu leen baal suñu borom ne leen déedéet qul ya ibadiya alladina ashrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru zunuba jami'a innahu huwa alghafuru rahim sunu borom ci mbaaxam ci am yërmandeem ci bëgg jaamam yi ndax moo leen sàkk ay jaamam lañ moo tax du leen topp ci seeni bàkkaar yu bëri bëgg leen a jéggal moo tax mu laase leen message wax ak ñoom ne leen yéen ñi nga xam ne góor ak jigéen mag ak ndaw da ngeen a yaakaar ne bu ngeen dëppee bàyyi yoon yu bon yi ngeen jaar dëpp wuy si yàlla yàlla dootu leen nangu yàlla dootu leen jéggal yàlla dootu leen baal déedéet yàlla du kooku bàkkaar yi li muy bari bari bari su toloon ne vague gi géej jaam bi dëpp wuy si yàlla tabaraka wa taala ci woo bi mu ko woo ne ko laa taqnatu min rahmatillah bu leen yàkkeeku ci yërmande yàlla ana ab jullit fu mu mën a toll ak lu ko mën a dal ak lu mu mën a def lu muy doy waar doy waar lu muy ñàng ñàng ñàng warul décourager ci yërmande yàlla da ngaa rey ay nit da ngaa taal dëkk da ngaa njaaloo da ngaa sàcc da ngaa fen da ngaa ñàkk julli da ngaa ñàkk woor saa yoo déggee woote yàlla nga dëpp yàlla pare na pour baal la moo tax mu ne laa taqnatu min rahmatillah bu leen yàkkeeku ci yërmande yàlla lu tax inna allaha yaxfiru zunuba jamia yàlla day baale bàkkaar yépp inna allaha yaxfiru zunuba jamia su yàlla wa su yàlla waxoon ne inna allaha yaxfiru zunuba rek doy na yàlla day baale bàkkaar yemu ci mu ne jamia mboolem bàkkaar yi kon bàkkaar boo mën a def soo delsee ci yàlla yàlla jéggal la kon mbokk yi dama yaakaar ne ab jaam ku bëgg yàlla bëgg Seydina Muhammad dëgg-dëgg di wootewu ne moom ab jullit la ak loo mën a def waloo yàkkeeku ci yërmande yàlla tabaraka wa taala mu ne ñëw na ci hadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam hadis bu siiw boo xam ne néew na ci téere wala ci waxtaan bu ñuy waxtaane tuub ca borom xam-xam yi waxuñu ko ci mooy attaibu min azamb kaman la zambala ki tuub ci ay bàkkaar moo ngi mel ne ku mësta am bàkkaar jaam bi nga xam ne góor la wala jigéen dugg na ci ay bàkkaar ba lap ak bàkkaar yooyu lu mën a nekk ak nu mën a def su dellusee ci yàlla tabaraka wa taala tuub moo ngi mel ne ku musta am bàkkaar aaya boobu ñu jàng léegi ak hadis bi ñu wax léegi dañ ko doon ubbee tomb bi léegi nag ñu war a wax lan mooy at tawba lan mooy tuub lugawiyan léeg-léeg borom xam-xam yi bu ñuy jàngale diine suñ lay wax tomb boobu ñu lay jàngal balaa ñu la koy leeralal ba mu leer dañ lay wax lu muy tekk ci arab wax la lu muy tekk ci sharia ma ne at tawba lugatan wa istilahan bu dee njàpp ñu ne la al wudu lugatan wa istilahan lu mu mën a doon borom xam-xam yi di ko jàngale léeg-léeg ñoom borom xam-xam yooyu danañu jàngale mbir mi ñuy bëgg a wax lu muy tekki ci làkku arab suñ ko waxee ba pare ñu wax lan lay tekki ci sharia ci làkku arab ci téere buñ naan maqayis al lugha danañ fa fekk baat bii di at tawbatu te mooy tuub ñetti xaraf ñoo ko composé boo ko delloo ca cosaan ba mooy xarfu ta arafu waaw arafu ba soo commencé mu nekk taw ba mu ne loolu li muy tekki ci arab mooy arruju mooy dellu olof yi sax dañuy wax ne ku dox ba xamatoo foo jëm da ngay dellu fa nga jóge woon jaam boo xam ne dafa nekkoon ci lu ko neex nekk ci ay mboosóoram nekk ci lu xóor nekk ci ay bakkaar lank bañ a topp yàlla mu dem dem dem dem ba xamatul fu mu jëm delluwaat yàlla loolu mooy arruju mooy tawba mu ne léeg-léeg ñu koy firi ñu ne yuqaalu taaba min zambi waa ji day tuub na bàkkaar yam doon def jéggulu na ko yàlla nee na soo déggee ñu ne taaba min zambi tuub na ci bàkkaar yi mooy lan mooy ay raja anhu la mu doon def bàyyi na ko da doon naan sàngara bàyyi na ko da doon mooy yàlla bàyyi na ko daa ñàkkoon a julli bàyyi na ko daa lankoor ne du woor bàyyi na ko raja anhu yatuubu ila allah tawba wa mataaba bàyyi na lépp lu mu doon def lu safaanoog li ko yàlla santoon léegi delluwaat na ci yoon wi li ko yàlla sant li ko yonent bi sant li ko diine sant loolu lay def ku def lool rek ñu ne waa ji kat tuub na kon jéggalu na yàlla sunu borom subhanahu wa taala wax ci alquran wa qaabilu tawba moom yàlla mooy nangu tuub mbokk yi ñun jullit yi sunu diine ak diine nasaraan yi du benn ab nasaraan bu defee bàkkaar day dem église abbé bi daa di raay bopp bi daa di koy sexal benn bonbon ne ko yàlla baal na la baal nañ la sa bàkkaar ñun jullit yi nag soo defee bàkkaar amul sëriñ bu la koy baal amul xalifa général amul muqaddam amul cheikh kenn dong moo la ko mën a baal muy yàlla manees na laa jéggalul nag manees na laa jéggalul kii sunu mbokkum jullit la daa def bakkaar ñun ñëpp ñu yëg ko ñun ñëpp ñuy julli ñu sujoot ñu ñaanal ko yàlla ay yàlla sunu mbokk mi de yàlla na nga ko baal sunu mbokk bi yàlla bul ko topp yàlla na nga ko jéggal yàlla na nga defar ay mbiram yàlla na nga yewenal ay mbiram laa fii ngeen fatt ko fii da ngeen koy fatt da ngeen koy fatt ba mu tëju mbokk fii su ngeen ko fermé wul du ma continuer conférence dama koy arrêté sunu borom subhanahu wa taala ci bëgg baal bi mu bëgg baal jaam yi moo tax mu ne wa qaabilu tawba man yàlla maay nangu tuub te nag ana kan mooy tuub mooy ku am bakkaar kan mooy ki am bakkaar mooy ki tooñ yàlla mooy ki yàlla sant mu bañ a def wala yàlla tere ko mu bañ a bàyyi kii mooy ki am bakkaar képp koo xam ne yàlla da laa sant nga lànk lim la sant wala mu tere la nga bañ a bàyyi yow yaay ki am bakkaar te nag bu leen yaakaar ne am na ci mbindeef yi góor wala jigéen bu amul bakkaar ndax fii ngeen toog ci keppaaru baas bi da ngeen xalaat seen xel ne am na ko amul bakkaar kan la wax leen ma kooku turam fii may wax ak yéen kooku seen xel di dem ay magasin ay conteneur bakkaar la yor ku seen xel dem rek fii may wax ak yéen bakkaar kat la ku seen xel dem nag laa wax loolu kan moo ko wax sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam moo ne kull ibnu aadama xatta wa xayrul xatta'in tawaabuun sallallahu alayhi wa sallam ne doomu aadama yëpp ay defkatu bàkkaar lañ ñëpp la wax mu ne ki gën a baax ci ñi def bàkkaar mooy ki def bàkkaar ba pare jéggalu yàlla kookoo gën a baax xam ngeen yonent yàlla aadama am na bàkkaar looloo ko jële aljanna wàcce ko ci suuf iblis looloo tax yàlla dàq ko ci yërmande yàlla yàlla sant na iblis sant aadama ndigal la yàlla jox iblis iblis bañ iblis lu muy tekki mooy borom mujj gu bon borom xam-xam yi nee nañ suuf si foo def nii c'est vrai iblis julli na ko nii ay jinne ñoo nekkoon ci kaw suuf si iblis moo ci nekkoon ku doon baax ku leen doon waar ba jinne yi lankalee yàlla yàlla yónni malaaka yi ñu ànd ak iblis di xeex ak jinne yi ba génne leen suuf si ñu dëkk ci biir géej gi ñu dëkk ci xur yi ci àll yi moo tax souvent doomu aadama su weetee géej wala mu dem ci xur yi rek day jommi parce que ñoom fa lañ dëkk waaw néew na ku dem ci xur yi ñëwaat jommi wuloo wala gisoo fa lu la tiital parce que ñooñ ñoo fa dëkk dëkku jàmbur la iblis ba mu moyee yàlla ci ndigal gam ko jox de su jootalal aadama yàlla daal di koy dégraté daal di koy dàq ci yërmandeem bi yàlla dàqee iblis iblis moom dafa rëy ngand ngandulu lànk yàlla dàq waaye mbokk bi laaj laaj bi mooy iblis boobu ngeen di dégg ak li ñu wax ne moom la defal yàlla ñaata bàkkaar la mooy laam ba yàqule ñaata laam yéen public bi laa ko laaj de iblis ñaata bàkkaar laam benn aadama benn laam mooy dugal aljanna lekkal lépp lu la neex mais garab gi bul ko laal iblis ci boppam ñëw nax ko ne ko yàlla dafa xam ne boo lekkee ci garab gi doo dee et puis da ngay nekk malaaka naaw ànd ak malaaka yi daf ko nax iblis dafa piéger aadama nax ko yamu ci waaye daf ko waatal ci yàlla ne ko maa ngi giñ ci màggaay yàlla man soo gisee may wax ak yow dama lay laaya biir rek loolu ngeen jàng Omar wa qaasama mu waatal leen ma leen man dama leen di laaya biir inni lakuma la min annasihin mu lay laaya biir yow yow Adama yàlla dafa xam ne boo lekkee lii da ngay nekk immortel dootoo dee et puis da ngay nekk sax malaaka rek Adama ak Awa daal di lekk yàlla daal leen di dégrader dàq leen ci biir aljanna kon Adama ak Awa ñaata bàkkaar lañ am ku nekk ku nekk benn Iblis ñaata la am benn Adama ak Awa ku nekk ñaata la am benn ñun ñu toog fii ci biir tànt bi ku nekk ñaata nga am dégguma dara de jigéen ñi ñaata ngeen am waaw fu ñuy dóore ku am benn bu fa borom fukk teewee nag kii dañ koy dóor benn la am yow nga ñëw ak conteneur kon nu ñuy def borom benn bi waaye ndeysaan yeneen ñaari mbir a ngi nii mooy kii lan moo tax yàlla jéggalu ko kii lan moo tax yàlla jéggal ko kii yàlla jéggalu ko ndax dafa rëy lànk ne tuubul kii nag ba mu tooñee yàlla rek rapidement daa tuub ba mu tooñee rapidement dafa tuub daan ne yàlla jéggal ma yàlla ne fa talaqa adam min rabbihi kalimat fa taaba alayhi innahu wa tawaabu rahim kon mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala wa qaabilu tawba dafa bëgg ku tuub suñ demee ci ba tey ñii firi baatu tawba ci lisaanul arab danañ fekk mu ne at tawba ar rujuu min azamb tuub mooy nga dellu si bàyyi bakkaar yi bàyyi ko nga dellu ci yàlla loolu mooy tuub moo tax koo dégg ci dëkk bi mu naan man de tuub naa manees na koo dëggal manees na koo weddi noo koy dëggale mooy nga xool ndax moom bakkaar yi mu nekke woon bàyyi na ko wala bàyyiwu ko su fekkee bàyyi na ko kon dafa tuub waaye bu fekkee ba léegi mu ngi continuer kon tuubul tuub du wax astaghfirullah yor kurus rek naan saafarulaay saafarulaay déedéet gaa yi sax léegi waxatuñu astaghfirullah waaye saafurulaay rek saafurulaay saafurulaay saafurulaay nga yaakaar ne laa ilaha illallah la ñuy wax fekk laa ilaha illallah la ñuy wax laa ilaha illallah nga yaakaar ne subhanallah la ñuy wax fekk subhanallah la ñuy wax comprimé boo bàyyee ba mu périmé nga naan ko du am njëriñ mbokk yi tuub mooy ar rujuu min azamb ñëw na ci xadisu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne an nadamu tawba réccu tuub la réccu tuub la kon loolu dañ ko doon firee baat bi nga xam ne moom lañ tuddee conférence bi mooy at tawba wa qabla alxawdi fi lmasala ayuha alahbab la budda min almururi ala badi alayat alkarima fi hada albab mbokk julit yi balaa ñuy xuus ci biir waxtaan wi il faut ñu romb ay aaya alquran yu yàlla wax ci buntu bii di buntab tuub di at tawba sunu borom subhanahu wa taala ne innama tawba ala allahi lilladina yacmaluna suu bi jahala ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما sunu borom nee na xam ngeen lan mooy tuub kaay leen ma wax leen ko bu leen yaakaar ne da ngay da ngay fecci van da ngay fecci samedi nga yeewu dimanche ne astaghfirullah déedéet bul yaakaar ne da ngay dem ëmbal ba pare suñu waxee nga ni astaghfirullah bu yaakaar ne da ngay ñàkk a woor ba koor gi jeex suñu waxee nga ne astaghfirullah borom nee na loolu du tuub de kaay leen ma wax leen lan mooy tuub innama tawba ñu ne ah mu ne ala alladina yaamaluna su bi jahala kii tuub mooy ki nga xam ne dafa def te li mu def xamu ko loolooy tuub da ngay dawal oto nga yegg si fenn taxaw fa te waroo faa taxaw waaye lu la fa taxawloo mooy xamoo fii kenn du fi taxaw waaw loolooy tuub maanaam waa ji li mu def xamu ko ndaw si dafa def bopp neen ñu ne ko laa ilaha illallah jigéen ñi def bopp neen mu ne ah lu ma ci xam ah ndeke jigéen ñi def bopp neen ñu ne ko waaw mu daal di jël kolam daal di kol bopp bi loolu mooy ñàkk xam waaye fii ñun tey affaire bi dafa leer ci ñun weng xam ne ëmbal daa araam xam ne daganut nga dem ëmbal ba pare naan waa jéggalu de jéggalu waaye jéggalu maa ngi jéggalu jéggalu koy jéggalu te yow xam nga ne lii daa araam képp ci ñun koo xam ne li mu def moo ko tey soo jéggaloo kenn du la baal parce que yaa ko tey kan la yàlla di baal mooy ki nga xam ne bi muy def tey ko xamu ko loolu la yàlla ne innama tawba ala allahi lilladina yamaluuna suu mu ne bi jahala ñoom ba ñuy def xamuñu ko woon aussi bañ ko xamee summa yatuubuuna min qarib yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam gaay bu ngeen déggatee ñu ne Muhammad wax leen sallallahu alayhi wa sallam lu ngeen xiif xiif xiif mar mar kenn du dégg turu yonent bi te waxoo sallallahu alayhi wa sallam xaaral ma essayé Muhammad Muhammad xanaa xamu leen ni ki gën a nay ci àddina bi mooy ki dégg ñu ne Muhammad mu ne pat kooko gën a nay ci àddina bi ñetti nit yàlla da leen a alak safara lañ jëm ku njëkk mooy ki ndeyam ak baayam di dund te amul ci ñoom àjjana ñaareel ku fekke weeru koor te fexe woo yàlla baal la ñetteel mooy ku dégg muhammad te waxoo sallallahu alayhi wa sallam ñett ñi dañoo alk kon lu ngeen woor woor bokk su ngeen déggee ñu ne muhammad wax leen mu ngoog ay dégg ñu ne Muhammad nga mel ne Muhammad du sunu morom de turam lañ njëkk a dégg ak sunuy turu baay turam la ñu njëkk a dégg ak sunuy turu baay ak sunuy turu ndey ak sunuy turu maam ak sunuy turu sëriñ ak suñuy turu suñuy turu suñuy turu turu Muhammad lañ njëkk a dégg kañ ba nga juddoo ca maternité ba bu fekkee sa yaay jàng na wala sa papa jàng na ca maternité laa wax ba nga nee cuttu rek ñu ne sa papa am nga doom mu daw ñëw wala sa yaay ñu ne am nga doom ñu uufal ko doom ji balaa baay ji ñëw turu Muhammad la njëkk a wax ci nopp yi lan la def du dafa nodd dafa li xam turu nodd baatu nodd ak li xam turu kan moo ci nekk damay laajte nodd ak li xam turu kan moo ci nekk après bi mu noddee ba pare bi julli jotee léegi ci jàkka ñi ñuy nodd ci turu kan lañ wax du turu Muhammad bi li xam jotee ci jàkka ñi turu kan lañ wax du turu Muhammad bi ngay taaya yow ci biir julli gi léegi bi nga jullee fajar ba pare di taaya turu kan nga wax ci biir julli gi sa turu pap sa turu maam turu imaamu jàkka ji turu bilal turu muhammad nga wax ci biir julli gi sa julli du mën a wér mukk lu dul nga tudd turu muhammad kon kooku war ngaa xam kan la mu des bu ngand bi nga dee ñu génne la sa kër dugal la ci morgue bi sang la ba nga set sang la yeew la ba nga ne kok romb seen kër romb terrain yi romb fépp romb grand place bi romb fi nga doon liggéeyee yóbbu la ba ci armée li gas ba mu xóot ne la dagaj nit ñi di ñibbi ñu indi yonent bi ne la waa ji loo doon wax ci moom waaw kenn du indi sa pap kenn du indi say maam kenn du indi say sëriñ kenn du indi benn kilifa jëmm sayduna muhammad lañ lay brancheel ci biir bàmmeel bi ne la maza kunta taqulu ala hadha al abd muhammada muhammad mi nga doon dégg nga ne ah ñu ne loo doon wax ci moom moo ngi nii loo ci xamoon ndax xamoon nga ci moom dara kon nag gaay yi ñu ngi déggee muhammad nañ wax sallallahu alayhi wa sallam sunu borom ne wa huwa allazi yaqbalu tawba an ibadihi wa yaafu ani sayiat moom yàlla mooy kii baale mooy kii nangu tuub moom yàlla kenn du ko nangu ku dul moom doomu aadama loo mun a def ci ay bakkaar soo koy jégglu yàlla nga koy jégglu te moom yàlla kese mooy xam ne waa ji war naa ko nangul ak waruma ko nangul wa huwa alladi yaqbalu tawba moom yàlla mooy nangu lan tuub ñan la koy nangul an ibaadi jaamam ñi yàllaay xool ay jaamam ay góor lañ wala ay jigéen lañu dañ koo tooñ tey ñoo ngi nii di jégglu yàlla mooy xool ndax war na leen a nangul wala warul leen a nangul waaye xoolal mu ne wa yaafu ani sayiat man yàlla maay jéggale ñaaw téef yi ndeke ñaawteef boo def amul kuy raay sa bopp amul ku lay sexal booboo amul xaalis booy joxe amul jàkka jooy tabax amoo lenn looy def lu dul nga jéggalu ko yàlla yàlla moo la koy jéggal qaala azza ismu afala yatuubuna ila allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim sunu borom ne waaw yéen sama jaam yi afala yatubuna ila allah lan moo leen tere tub yéen lu tax du ngeen tekk seen bopp ba mu dëgër ngeen bàyyi li ngeen ne ngeen delsi ci man yàlla lu leen ko teree def afala yatubuna ila allah lan moo leen tere tuub mais Sénégal ku fi dëkk yàlla nattu la soo moytul doo tuub mukk maanaam doo soxlaal sax yàlla dara ndax kat fii moom réew mi gaa yëpp àjjana lañ jëm Sénégal boo bëggee gis réew moo xam ne ñëpp àjjana lañ jëm ñëwal Sénégal ñëpp àjjana lañ jëm gaa yi sax bañ nañ ko ba dañ leen jox caabi yi ba pare koo gis fii amu yeeg caabi àjjanaam caabi àjjana lañ leen jox waaw moo tax nit ñi ni ñu war a jaamoo yàlla ni ñu war a toppee yàlla kenn du ko def lu tax ndax dugg nañ àjjana ba pare da ngay jékki-jékki benn waay mu génn rek ne ku ma gis dugg àjjana rek gaa yi di yuuxu wala rek aka yomb ku ma gis rek dugg àjjana kee tëll fële daan ne fii alhamdulillah ku fi teew texe nga dugg nga àjjana ñii soo leen gisee dugg àjjana ñii boo teewee ci seen grand place dugg àjjana ñii boo bayee seen tool dugg àjjana kii boo raxasee otoom dugg àjjana kii boo ko fompalee dàllam dugg àjjana moo tax ma ni réew mi ñëpp dugg nañu àjjana ba pare moo tax kenn du góorgóorlu ci jaamu yàlla te nag gis ngeen loolu ñu doon lim yëpp yëpp ay caaxaan la benn waay moo doon téyel yonent bi ay dàllam hadis bi ma ngi ca buluxul maraam yéen ñi jàng ngeen jógee ngeen seeti ko foofu mu bëgg yonent bi bëgg boo xam ne saa yonent bi simmee dàll rek mu ne sarax dàll yi téye teg ci dënn bi yonent bi xool ko ndeysaan daal di koy yërëm ne ko waxal loo bëgg ma ñaanal la yàlla yàlla defal la ko waxal loo bëgg rek su doon tey kenn ci ñun fii toog la ku toll ne yonent bi ne la waxal loo bëgg ma ñaanal la yàlla bu doon ñun ngeen defe ne lu ñuy wax kat kat limousine air plus ah ay compte maanaam mbaru mbirum adduna la ñuy ñaan mbirum adduna xoola waa jooju xam nga lu mu wax yonent bi bi ko yonent ne waxal loo bëgg ma ñaanal la te wallahi su waxoon loo xam ne yonent bi mën na ko yonent bi dina ko defal xam nga lu mu wax asaluka murafaqatuka fil janna yonent man de li ma bëgg lenn dong la ni ma ànd ak yow àdduna yàlla dimbali ma noonu ba ëllëg ma ànd ak yow biir aljanna soo kese laa bëgg ànd ak yow àjjana dong laa bëgg bëgguma leneen su fekkonte ne yonent bi mën na dugal nit aljanna danaan ko waaw jeex na waaye yonent dina ko aa mënuma loolu laajal leneen mënuma loolu waa ji ne man tamit lool rek nag laa bëgg bëgguma leneen waa ji insisté yonent bi insisté laajal leneen man bëgguma leneen loolu laa bëgg yonent bi ne ko kon a inni ala nafsik bi bi kasarati sujud kon danag ma dimbali comme àjjana rek nga bëgg nag ma dimbali waay waay del sujjóot lu bëri waay mooy del julli lu bëri del julli lu bëri de fekkee àjjana rek nga bëgg a dëgg del julli mbokk yi su fekkonte ne nit dina garanti ay nit aljanna yonent bi garanti waa këram garanti sahaaba yi garanti ñamu nekkaloon ca jamonoom waaye yonent su ngeen gisee wooteem bi réussir mooy déviyewul kenn naxul kenn ñëpp dëgg la leen wax ndax dëgg la ko yàlla yónni wa ma ala rasul illa al balaag warul ab yonent lu dul li ko yàlla yónni mu jottali ko moo tax moom yonent mu daal di jottali li ko yàlla jox naxul kenn ñëpp daf leen jaamooloo yàlla doomam bu jigéen la njëkke taxaw ca xeeru safa yuuxu ba ñëpp ñëw ku nekk mu jaar sa tur di la wax jaamul yàlla ba mu tourné ci biir mbooloo mi mu seen fatima taxaw mu ne ko yaa fatimatu bintu muhammadin sali min mali ma siit fa inni la ugni anki min allahi shay fatima daggit nga ci man maa la jur waaye boo jaamul yàlla ëllëg mënalu ma la dara ci kanamu yàlla sama alal laajal lu la neex ma jox la sali min maali maa si laajal sama alal lu ma neex ma jox la maa ko moom waaye boo jaamul yàlla ëllëg mënu ma laa dugal aljanna fii nag li tax nit ñi duñu tuub mooy da ngay gis trafiquant drogue du tuub de danaan lu ma am rek su ma demee ci sëñ bi jox ko ci rek dinañ ma baal nga gis musicien du tuub mukk day dee rek dem safara pourquoi parce que lu mu am bu ci xaajee bu ci joxee ñu ne ko jërëjëf kenn du ko ne tuubal nga gis mbërum làmb du tuub su daanee rek ñu jox ko kaseem mu xaaj ñëw ne kilifa gi sa wàll ngi nii mu ne ko jërëjëf yàlla na nga yàgga daan moo tax fii ku fi yàlla nat doo tuub da ngay xëy rek dee yàlla boole la ak mbalit mi tàbbal ci kàbbu jahannama ab jullit nag bu bëgg yàlla day déglu li ko yàlla wax li ko yonent bi wax mu bàyyi ci xel mu jëm ko jëfe yàlla daf ñu woo ne ñu afala yatuubu afala yatuubuuna ila allah lan moo leen tere tuub dellu ci yàlla te ngeen jéggulu yàlla wa yastagfiruuna wa yastagfiruuna ñu jéggulu ko dellu leen ci yàlla ngeen tuub ngeen bàyyi li ngeen di def ngeen jéggulu ko ca mbir ya paase ya ngeen doon def xanaa xamu leen ni wallahu gafuru rahim beneen aaya sunu borom ne illa man taaba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu llahu sayiatihim hasanat wa kana allahu gafuran rahima sunu borom nee na ñiy def ay bakkaar ñi may tooñ ñi jàdd lànk bañ a jaar ci yoon wi ma leen jaarloo ñi bañ a def sama santaane ñi bañ a bàyyi sama tere bis bu ñu demee ba yëg ne ci danger la ñu nekk ñu tuub dellu ci yàlla pour ma baal leen lii mooy sàrt yi illa man taaba lu dul ñu tuub mooy li ma waxoon sànq duñ ci yem wa amana ñu gëm yàlla wa amila amalan saalihan ñu jëf-jëf ju baax gis ngeen moo tax tëdd di nelaw bu nit ñi di jaamu yàlla nga tëdd di nelaw nit ñi di julli ji nga tëdd nit ñi di woor nga tëdd naan ndogu laay joxe duma woor comme li am tey foo tourné ngoon ci biir dëkk bi ñu ngi tàngal ay cin ay ponkali yoo xam ne mën nañoo toxal géej bu ñu poussé géej géej arrière dara dalu leen ñu naan ñun duñu woor ndogu la ñuy joxe kan moo leen ko wax kan moo leen ne joxu leen ndogu kan ban diine ban yonent moo leen ne yéen mën ngeen a bañ a woor joxe leen ndogu kan moo ko santaane mbokk yi ñooñu doon def loolu yàlla nee na pour ma baal leen dañuy tuub dellu ci man duñu yem waaye dañ may gëm man yàlla wa amana da ngay delluwaat gëm yàlla duñ ci yem wa amila amalan saalihan ñu góorgóorlu nag jëf ay jëf yu baax waaye tëdd na rek man gëm naa yàlla de loolu mooy tey suñu problème koo wax mu ne la gëm naa yàlla waaye bu julli jotee mu tëdd waaye sa waay dox julli joo ah yàlla xol lay fay waay na xol bi rafet rek xanaa xamu leen ëllëg yowmal xiyaam dañuy jekki-jekki dekki rek yàlla na ñeen ñëpp dugg leen àjjana mbélé àjjana yooyu de la gars yi di maye waaw yàlla day jekki-jekki daan ne na xëy mbaay yéen ñëpp dugg leen àjjana yomb na de ma ne jullit laa wax bu gëm yàlla day déglu yàlla lim ko wax alquran ji waxi yàlla la dooxi ma sàmba dooxi ma demba boo jàngee demal nga liiral sa bopp boo jàngee français sax demal nga jël boog kaamil bi nga jàng traduction bi en français di nga gis waxu yàlla mbooleem làkk boo dégg tey yàlla dimbali na doomu aadama yi ba traduire nañ ko ni ci alquran olof sax traduire nañ ko kaamil bi olof kon demal nga liir ko nga liiral sa bopp li yàlla santaane ak yonentam li yàlla bëggal jaam ñi nga déglul ko sa nopp moo gën ngay déglu mbedd mi moo gën ngay déglu mbedd mi moo gën ngay déglu mbooloo yi moo gën ngay déglu ñi nga xam ne du ñu santaane jaamu yàlla waaye seen mbiri bopp rek la ñuy santaane keneen koo sonn ci ay mbiram su ëllëgee di nga ko rëcc ku dul yàlla ma ne koo sonn ci mbiram ku dul yàlla suba di nga màcc sa baaraam ndax yàllaa la bind ba mu lay bind kees kenn fekkewu ko bu la yàlla di rey kenn mënu ci dara koo fi yaakaar dañuy ñëw ne ko diw dee na mu ne loolu kañ la ñu ne ko biig mu ne xanaa dafa feebaroon ba muy dee yëgoo ko koo fi wóolu laa wax nga yaakaar ko soo deewee du ko yëg dañ koy woo téléphone wala ñu yónni nit mu ñëw ba ci moom ne ko diw dee na mu tiit kañ la dee ñu ne ko biig ci guddi xanaa dafa feebaroon ñu ne ah moom kay daal ndogu ba pare rek dee waa jooju taal otoom woote ne bu leen ko suul maa ngi ñëw mu ñëw ci morgue bi fekk yaa ngi ne lacc tëdd mu ñëw dugg génnaat dara la ci mënut ndeysaan dara la ci mënut dugg na génnaat lu mu ci mën bu mu noon dara day jàpp sa loxo ne la sa waay nga ne mun a jógal taxaw man ñëw naa yow deewagoo léegi ay déedéet day dugg ñëwaat rek xulli gaa yi ay bët lan la mu ne sang leen ko te pare ñu jullee ko sang leen ko pare ñu jullee ko loolu dong la ci mën loolu bu ñëwul woon sax nit ñi def ko bu ñëwul woon nit ñi def ñu sang la mu ngi gis dara la ci mënut ñu sang la mënuñ ci dara ñu yeew mënuñ ci dara ñu génne teg daan ne pare nañ mu ne defar leen sàppe yi gis nga kon mu ci dara su ñëwul woon li yëpp ñu def ko ñu defar sàppe yi mu ne dañuy ñaan yàlla xoolal dañuy ñaan yàlla ah déet ma defoon na kii day ñëw rek ne na dugg kii sama waay la sama kii la sama taalibe la wala sama parti la bokk wala sama militant la wala acca déedéet day ñëw ne mbokk yi ñu ne ah mu ne defar leen sàppe yi dañ koy ñaanal yàlla ñi mën jàng ñaan gi jàng leen ko ñi mënul maanaam ñi mën jàng ñaan gi wax leen allahumma ighfir lahu warhamu ñi mënul wax leen yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko du loolu la ñuy wax ci yàkka yi jeex na tàkk kon kay du dara kon jaamu ji leen yàlla nanu jaamu ji yàlla mbokk yi yi fi nekk yépp ci dëkk bi ay protocole kese la dara wéru ci te doomu aadama yi balaa ñu xam ne dañ leen di nax wallahi alazim ñu yenu la foofu ma wax léegi léegi ilimaan bi kàbbare jàng fatiha kàbbar def salaatu ala nabi kàbbar ñaanal la kàbbar sëlmal ñu yenu la dugg ci armeel yi wàqi suul la rek mbir yëpp leer su nit ñi di dem sax su nit ñi di dem la yàlla di wax ak yow balaa nit ñi génn yàlla ne la yaa abdi yaa abdi tarakuuka wa dafanuuk wa fi turaabi dafanuuk walaw zallu maaka ma nafauk walam yabqa laka illa ana wa ana alhayu allazi la amut yaa abdi e sama jaam e yow sama jaam gaa yaa ngay ñibbi de suul nañ la bàyyi la fi suul nañ la bàyyi la fi ñoo ngay ñibbi suñ fi toogoon sax nag duñ la jëriñ suñ fi toogoon ñun ñëpp mbokk yi bu ñu amoon mbokk bu dee ñu dem ba ci armeel yi suul ko ba pare toog ci kaw armeel bi ndax danañ jëriñ waa ji dara xam nga lu tax duñ ko jëriñ moom mu ngi ci biir ñun ñu ngi ci kaw néeg buy lakk safara si di boy ci biir ay nit nekk fa ñi ci biti luñ mënal ñooñu dara dara rawatina nag bu dee place bu kawe la boo xam ne yéen du ngeen fa joti ci biir suuf la waa ji nekk suul nañ ko ñun ñu ngi nii taxaw ci kaw waa ji kan moo xam lu mu nekk ci biir kan kenn waaye Sénégal moom am nay laissez-passer waa ji day dee dafa am benn mbokk bu dee ñu wax ma ko ne ma kaay dimbali ñu nga sang ko ma ñëw sang ko ba ba ma pare ba ma ba ma sang ko ba pare ñu ñëw ne ma dañoo soxla néew bi génnal ma ne ah ñu ne waaw ma génn taxaw cinq minutes ñu ñëwaat ne ma mën ngaa ñëw eggali ma ñëw xool néew bi ma gis ñu dugal fii benn téere ma woo waaju mu ne ma li may laissez-passer bi wallahi alazim damaa woor wallahi damaa woor fii la fii lañ ko dugal fii ñetti nit ñoo ñëw ne ma dañoo soxla néew ma génn ndeke benn téere lañ dugal fii allahu akbar ñeneen ñi dañuy cëppeelu ci biir bàmmeel bi daal di bindi fatimatu bintu asad indi leen néew bi ngeen tëral ko ci ndeysaan ñeneen ñi bu ñu suulee ñu ne ana diw mu ne maa ngi nii ñu ne taxawal ci bopp bi ana diw maa ngi nii taxawal ci tànk yi ana diw maa ngi nii taxawal ndeyjoor ana diw maa ngi nii taxawal càmmoñ yow mi taxaw ci bopp bi jàngal yaasin ki ci tànk yi jàngal suratul fathi inna fatahna yow mi ci loxo ndeyjoor bi jàngal suratul mulk yow mi ci loxo càmmoñ jàngal suratul sarxi alam nashrah su neexee yàlla bu ko neexul kii àjjana la jëm su ko neexee su ko neexul àjjana la jëm lu tax parce que jàngal nañ ko lii allahu akbar ay Sénégal moo neex rek xanaa xamuleen ne alxuraan bi kim doon wàcc ci moom mooy kan Muhammad moom la nit faatu nit faatu mu fekke ko baayu waaji doomu waaji ñëw ci yonent bi ne ko yëg nga sama papa dafa gaañu mu ne ko waaw mu ne cey waaye damaa bëgg nga sangal ma ko mu ne waaw dinaa ko sang mu sang ko ba pare mu ne ko damaa bëgg nga solal ko sa yére bi nga doon jiite juma au lieu que ñu koy utal mbalaan mu ne ko déedéet yow yonent bi yére bi nga doon jiitee juma la ñu bëgg waaj yi nga laxas ko ci Omar ne déedéet yonent kii saay saay la bandi la ngay jël sa yére di ko laxas Omar ne yonent bi ne Omar Omar man la yàlla yónni wala yow mu ne yow mu ne kon bàyyil Bilal mu ne ah mu ne dama ngay indi ma mbummi ñu indi mbummi yonent bi laxas waa ji waa ji ne yonent damaa bëgg nga jullee ko ay waay julleel ma ko yonent teg waa ji bëgg a julli Omar ne ko yonent bu ko jullee yonent ne Omar man la yàlla yónni wala yow mu ne wax dëgg yàlla yow la yàlla yónni waaye kii bandi la mu ne Omar bàyyi rek amaana man comme yonent laa yàlla ma yónni su ma ko jullee yàlla baal ko bàyyi bismillah yonent bi jullee ko gaa yi yenu ko mu ne yonent dama bëgg ñu dem ci armeel yi suñ gasee nga dugalal ma ko ci mu ne waaye te nga bàyyi yonent bi mu toog rek noppalu yonent ne nañ dem ñu dem yegsi ñu gas ba mu xóot yonent dugg ci biir gaa yi jokk ko mu ne bismillah ala millati rasulillah mu dugal ci mu ne gaa yi delloo leen suuf mu delloo suuf si ba pare waa ji ne yonent ñaanal yonent yëkkati loxo yàlla ne ko wàcce ko soo ñaanee duma ko baal jàng ngeen ko wala jàngu leen ko Umar ban aaya la astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum lan lan la yàlla indi leen ñu jàng arab lan mooy lan lan yaghfir allahu lahum beneen aaya ba ca suratu tawba mu ne ko walaw istaghfarta lahum sab'ina marra lan yaghfir allah te sax ku mel ni bu deewatee attention yow muhammad wala taqum ala qabri bul taxawati ci bàmmeelam may wax nga naan da ngay ñaan yàlla dankaafu seydina muhammad ñun waa Sénégal dañoo am ku gën a fort Seydina Mohamed dañ ko am wax leen ma fu mu dëkk wax leen ma fu mu nekk waaw Mohamed laa wax kon nag xam nga lu fi nekk mooy kaay leen ñu tuub jaamu ji yàlla wax ji daal waxtaan bi daal mbokk yi lu muy bëri bëri bëri bëri lu ñu fi nar a yendu di wax wax ji du lenn lu dul kaay leen ñu jéggalu ji yàlla sunuy bàkkaar ñun ñëpp nag dañoo amay bàkkaar ñun ñëpp ku am bàkkaar nag nooy def mooy nga dugg ci ruq xam nga li nga def balil insaanu ala nafsihi basira walaw alqa maazira ku nekk xam nga sa bopp góor ak jigéen mag ak ndaw ku fi toog ak ku fi toogul ku nekk xam nga sa bopp xam nga li nga def xam nga li nga def ku nekk fii nga toog xam nga yaay kan xam nga da ngaa woor wala wooroo xam nga yaa ngi julli wala julliwoo xam nga yaa ngi xam nga yaa ngi xam nga yaa ngi xam nga kon nag lu fi nekk mooy yooyu nga xam sa bopp yi ci positif ya ca baax ah ñaanal yàlla mu saxal la ci yi ci négatif baaxul demal nga simmeeku nga sànni ko sunu borom waxaan na beneen aaya mu ne wa an istaghfiru rabbakum summa tuubu ilayhi yumatti'ukum mataan hasanan ila ajalin musamman wa yu'ti kulla dhi fadlin fadla sunu borom nee na dem leen ngeen jéggulu ji ma dem leen ngeen jéggulu seen boroom istaghfiru rabbakum jéggulu leen yàlla wax leen astaghfirullah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na maa leen gën a ragal yàlla yéen ñëpp wala wala ah yéen yéen a gën a ragal yàlla yonent bi yonent bi nee na maa leen gën a ragal yàlla yéen ñëpp wala te bis bu nekk danaa jàkkaarloog sama borom naan ko jéggal ma ba mu mat juróom-ñaar fukki yoon wala mu ma téeméeri yoon keroog ba suratu nasri wàccee yàlla ne yonent bi isa jaa nasrullah wal fat wa raayta annas yadxuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu yonent bi nee na tëddatuma lu dul dinaa wax yàlla juróom-ñaar fukki yoon wala téeméeri yoon yow yàlla baal ma yonent fu mu toogee naan yàlla baal ma yàlla jéggal ma kon ñun nag te yonent amul bàkkaar de am na ko sax waaye yàlla da koo baal alquran la inna fatahna laka fathan mubina li yaghfira laka allahu ma taqaddama min zambika wa ma taaxar yàlla ko ne na ko dinaa la baal bàkkaar yu njëkk yëg yu mujj yi te terewul de yonent baa ngi jéggalu yàlla te yàlla baal nag yonent bi da daan julli guddi ba tànk yi di métti tànk yi neew yi yaay Aysa ne ko waaw yow yàlla baal na la say bàkkaar nga toog fii di sujjóot di julli ba sa tànk métti te yow baal nañ la mu ne ko afala akuna abdan shakura xanaa duma nekk jaam buy sant yàlla mbokk yi sunu borom nee na jéggalu leen ma astaghfirullah li muy tekki mooy yow yàlla jéggal ma moo tax jullit bi war a xam naka lañ koy defee pour yàlla baal ko waxuñu rek nga toog naan saafurulaay saafurulaay saafurulaay mooy lan te li doy waar ci sénégalais yi mooy koo wax mu ne non yàlla comprendre na ko xam na li ma bëgg a wax du lool de gis nga numéro téléphone suñ la ko joxee su la Macky Sall tey recevoir oon ndogo ndog yow ngay dem mu jox la benn numéro téléphone nga këru ko mu ne la saa yoo ma woowee essayel nga essayé nga woo ko jot ko mu ne la saa yoo ma woowee ma rek la sa problème ngay si yegsi ci kër gi rek ngay werante gaa yi ngay werante ak ñoom ba ëppal nga fàtte benn numéro bi chiffre bi nga yàq ko gaa yi ne la du dëgg nga ni dëgg la du dëgg ngeen di coowoo ngeen indi leen portable ñu indi nga composé nga yàq benn lettre nga jot waa Sonatel ñu ne la numéro bi nga dugal baaxul xoolaatal araf yi nga dugal du loolu la la waa ji di wax ci olof wala du loolu la waa ji di wax ci olof ndaw si ah numéro yi nga dugal baaxul xoolaatal araf yi nga dugal nga ni eh non gars yi xaaral nga dóoraat machine bi waxaat la loolu nga dóoraat mu wax la loolu nga xulli ay bët ba yow man xiyaam dootoo ko jot lu tax lu tax da ngaa yàq numéro bi yàlla bu la waxee waxal astaghfirullah nga nekk fanaan saafurulaay saafurulaay saafurulaay suba ba ngoon xam nga lan nga def mooy da ngaa ŋaang ñëpp loolu xale naan waxoo fi dara da ngaa ŋaang ñëpp loolu nga fi def kon jéemal nga xam nuñ koy waxee astaghfirullah as as tagg tagg ta ag fi astaghfirullah boo ci waxee ñett rek baax na ñett yàlla maa ngi lay jégglu yàlla maa ngi lay jégglu mu génn ci xol bi ñëw ci gémmiñ gi dëggu yàlla baal la na dëggu rek na dëggu yàlla dafa baax ba soo ko wooyee da lay wuyu yàlla nuroowul ak nun wa ida saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu daawata daayi ida daan yàlla nee na muhammad gaa yi buñ la laajee man yàlla fan laa nekk dama sori wala dama jege ne leen dama jege ba kuma woo ma wuyu la sooy woo yàlla rek yàlla di la wuyu yonent yàlla Muusa gisoon na benn waay buy jaamu xërëm naan yaa sanam sanam ci arab mooy Umar mooy xërëm ak timsaal mooy loolu gaa yi di yett yooyu ñuy yett wala yooyu ñuy dessiné yooyu la mooy sanam wala timsaal waa ji bi mu sampee xërëm bi naan yaa sanam yaa sanam yaa sanam yaa sanam làmmiñ bi gaaw mu ne yaa samad yàlla ne ko labbayka ya abdi Moussa ne yàlla kii yéeféer la dafa juum de woowu la woon woowu la dafa juum sanam la doon wax mu wax samad samad mooy qul huwa allahu jàng leen qul huwa allahu jàng leen qul huwa allahu ma dégg lu ci tegu baat baa ngoog yaa samad mooy yow yàlla mooy yow mi ñu jublal mbir yi waa ji loolu la juum mu wax bëggul woon wax loolu waaye làmmiñ bi moo juum mu wax loolu yàlla ne ko wuyu naa la yow sama jaam Moussa ne yàlla kii woowu la de dafa juum yàlla ne yaa Moussa hal min samadin xayri Moussa ndax am na ku tudd Samad Moussa ne ko déedéet yàlla ne Moussa kan mooy Samad mu ne ko yow mu ne ko man la woo man ku ma woo ma wuyu li waa ji di kàccoore kàccoore li waa ji di saay-saay li waa ji di bon man la woo man yàlla ku ma woo ma wuyu kon nañ woo yàlla waaye nañu fexe buñ koy woo nañu ko woowee ci ay turam nañ koy woowee ci ay melokaanam yu sell yi turam yi nga xam ne ak melokaan yooyu nga xam ne moom la jagleel boppam yàlla dafa am ay tur am ay melokaan su fekkee da ngaa soxla da ngaa bëgg da ngay jéggulu soo ko ci woowee mu wuyu la am na ay nit yu dugg safara ñu nekk fa di woo yàlla ci biir safara sa naan yaa hannaanu yaa mannaan yaa hannaanu yaa mannaan yàlla daal di woo jibril ne ko jibril mu ne ah yàlla ne ko sama tur bi maa ngi koy dégg ci ay nit ñoo xam ne ñoo ngi biir safara jibril demal nga génneel ma gaa yooyu jibril ne yàlla ñooñu day ba ñu demee ci seeni registre seeni registre tiyaaba fañ daan bind seen tiyaaba yi bañ fa demee yow yàlla fekkuñu fa sax pepp tiyaaba amul tiyaaba ay bàkkaar yi kese la kon ñooñu mënuñoo génn yàlla ne jibril waaye sama tur bi ñuy wax biir safara moo tax sama tur bi kenn du ko wax di lakk kon génne leen kon kay nañu woo yàlla waaye ñun dañoo tàmm musiba ba sax ci fakkastalu boo gën a ndaw fakkastalu kenn du woo yàlla ñaan sax ñaan kenn du tàllal loxo di ñaan yàlla déedéet ci bàmmeel yi la ñuy dem bàmmeel tiim ku dee sëñ bi sëñ bi visa rek laa bëgg visa bëggumaa jaar ci géej gi bëggumaa jaar ci géej gi visa laa bëgg di lox di lox ku dee daa mën a maye visa ku dee benn benn waay dafa dafa gis kenn ku nekk ci bàmmeel di ñaan bàmmeel bi waa ji daal di jaxle mu ne waa ji yow eh ki ngay ñaan mu ngi Dakar de lu ko sëñ bi daa dem Dakar mu xanaa da nga dof yow kii dee ñu suul ko nga ne ma daa dem Dakar mu ne ko soo gëmoon daa dee daa dee doo ko ñaan soo gëmoon daa dee doo ko ñaan nooy ñaane ku dee te nga gis fi yàlla yàlla ne ma boo ma woowee ma wuy la ngay ñaan ku dee ku dee bu mu doon dara du dee ku dee su mu doon dara du dee kon ñaanal yàlla mi yor di maye yàlla nee na walillahi xazainu samawaati wal ard yàlla nee na maa moom magasin asamaan yi ak suuf kon ñaanal yàlla mbokk jullit yi kon dañoo war a tuub summa tuubu ilayhi tuub leen dellu ci yàlla mu ne su ngeen ko defee yumattiukum mataan hasanan su ngeen ko defee rek dinaa leen bànneexululoo di ngeen bànneexu dinaa leen kontaanloo lu tax ndax li ngeen ragaloon laay dindi li ngeen bëgg ma may leen ko ngeen kontaan lii nii ñuy wax ak yéen alxuraan la ay aaya la yoo xam ne saa yoo demee ci saar yi bu ci nekk da nga ko fa fekk kon confiance la ñuy delloo ñun ñi nga xam ne dañoo fees dell ki bàkkaar ñun ñi nga xam ne ay doomu aadama lañu dañuy tarxiis guddi ak bëccëg aaya yu mel nii waxtaan yu mel nii daf ñuy delloowaat confiance ci sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu mbokk yi sunu borom nee na yumattiukum mataan hasanan ila ajalin musamman wa yu'ti kulla zi fadlin fadla beneen aaya sunu borom subhanahu wa taala mu ne wa man taaba wa amila salihan fa innahu yatubu llahu ilayhi mataba képp ku tuub nga jéggulu yàlla balaa ngay dee balaa ñuy tëj buntu tuub balaa sa ruu di yegg si fii soo tuubee yàlla dina la baal mbokk yi tuub bi ñuy waxtaanee am na ñoo xam ne bis bu ñu xëyee di ko def yàlla du leen baal bu yeboo ñu déglu bu baax ñun ñu nekk fii góor ak jigéen tuub bi ñuy waxtaane laa wax ku gaawul léegi def ko nga bàyyi ba yii may bëgg a wax ñëw soo tuubee ak koo mën a nekk ak koo mën a àndal ak foo mën a tuubee bu yobee sox ñu ubbi buntu kaaba gi nga dugg ci biir yàlla du la baal soo bàyyee ba fii mooy fan fii mooy Medina bu ngeen xëyee suba jant bi fan lay génnee fii très bien bis bu ñu bàyyee ba jant bi xëy suba génne fii ñépp taxaw naan waaw ah gars yi ne la tey la yombal xiyaam nga ni it kon di xaar ma dem jàpp commencé julli soo tuubee yàlla du la baal ku bàyyi ci ñun laa wax ba jant bi xëy fenk fii sooy tuub yàlla du la baal loolu mooy benn ñaareel mooy boo bàyyee ba nekk ci sukuraat malaaka baa ngi ci sa dënn xëcc na ruugi ba ba fii yaa ngi karkari xar ñu naan ay waay ay waay ay waay ay waay ay waay amatuñu yaakaar ñu naan la waxal laa ilaha illallah soo ko bëggee wax xam nga malaaka bi la la lay def day tël salaamiñ nga ni laay laay la laa doo wax laa ilaha illallah laaj leen firawna firawna ba mu kàccooree ba bew réew mu def lu ko neex yemu ci mu jekki-jekki daan ne ana rabbukumul a'la maa yàlla ju ngande ji maa yàlla maa alimtum lakum min ilahin xamaluma leen benn yàlla bu dul man keroog ba ndeysaan firawna waxee loolu iblis daa jóge ba ci kaw daa di daanu ci suuf daan ne man de li may kàccoore kàccoore nekk firawna ma raw man musuma wax maa yàlla man iblis musuma koo wax mu bàyyi ba guddi mu ñëw fëgg buntu kër firawna firawna mu ne kokkan la mu ne xam nga da ngay fen xam nga doo yàlla firawna moomu bi muy waaj a dee ci biir géej gi yàlla di ko labal ba muy xam ne day dee dafa ne laa ilaha yàlla mu ne jibril su tuddee sama tur rek ma effacé sa tur su tuddee sama tur bi rek yow jibril ma dindi la ci malaaka yi ma jege jibril nee na suuf laa dank ci biir géej gi suufu géej bi mu nee laa ilaha rek mu sadd ko ci biir gémmiñ gi làmmiñ bi daal di tarxiis mu ne illa allazi amanat bihi banu israil amul benn yàlla bu dul yàlla bi nga xam ne waa banu israil moom lañ gëm banu israil ban yàlla lañ gëmoon moom firawna lañ gëmoon kon nag mbokk yi ab jullit na gaaw tuub jéggulu yàlla subhanahu wa taala sunu borom nee na bu ngeen tuubee dellu si ci man ma jéggal leen ma nangul leen sunu borom waxaan na beneen aaya mu ne wa yaa qawmi istagfiru rabbakum summa tuubu ilayhi yursili samaa alaykum midraara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum sunu borom subhaanahu wa taala nee na wa yaa qawmi ee yéen nit ñi ngallawaayi istagfiru rabbakum jéggulu leen seen borom dee leen wax astagfirullah subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah allahu akbar saxal leen ko seen gémmiñ mu ne summa tuubu ilayhi tuub leen dellu ci moom mooy dellu siwaat leen ci yàlla bàyyi leen yi ngeen di def ngeen dellu siwaat ci yàlla mu ne su ngeen ko defee yursili sama alaykum midraaran man yàlla damay ubbi xéewali asamaan yi mu sotteeku ci jamono yonent yàlla Moussa dañoo jékki-jékki taw bi arrêté xam ngeen ay bàkkaar day téye taw ay bàkkaar day tëj wërsëg da ngay gis koo xam ne jàng na ba bëgg a dee bëgg a liggéey du liggéey parce que ay bàkkaar ñu ko téye liggéey nga gis jigéen joo xam ne dafa bëgg am doom du am doom parce que ay bakkaar nga gis góor bu bëgg am doom du am doom parce que ay bakkaar nga gis ku kër këri guddeeg bëccëg sonn guddeeg bëccëg du avancé parce que ay bakkaar bakkaar day tëj ay bunt dalay soriloo yàlla xanaa gisu leen iblis ak aadama ñoom ñëpp ba ñu moyee dañoo sori yàlla yent yàlla Moussa ci jamonoom asamaan si ndox mi taxaw bañ a ñëw lépp sonn rabu àll yi sonn nit ñi sonn gàncax gi sonn Moussa daal di génn peuple bi dem ba ca àll ba mu tàllal yàlla ay loxo mu ne yàlla ñoo ngi lay jéggulu e waay yàlla na taw yàlla ne ko biir mbooloo moomu nga nekk dafa am ku ma tooñ te su ma jéggaluwul ndox mi du ñëw yonent yàlla Moussa mu ne mbokk yi gars yi ne ah mu ne ñun ñu toog fii de dafa am ku ci tooñ yàlla te yàlla nee na bu ko waajooju jéggaluwul ndox mi du ñëw benn waay fi mu toog ci biir nit ñi mu wax ci xelam mu ne man mii la maa defoon nangam ak nangam xam naa man la waaye yow yàlla loolu maa ngi la koy jéggulu yow yàlla maa ngi tuub loolu yow yàlla loolu maa ngi la koy baalu ay baal ma rek ndox mi wàcc dafa daane rek ndox mi wàcc ñëw waame bi walangaan walangaan Moussa tàllal yàlla loxo ne ko yow yàlla waa ji daa tuub mu ne ko waaw waa ji daa tuub kay mu ne yàlla doo ma ko won won ma kan la ma xam ko yàlla ne ko Moussa waa ji bi ma tooñee feeñalu ma ko woon bu ma ko baalee naka laa la koy won bi ma tooñee wane wu ma ko naka laa koy baalee ba pare naan la kii la bi ma tooñee dama ko suturaal kon su ma ko baalee nag dama koy suturaal kon gis ngeen yàlla ci mbaaxam gis ngeen yàlla ci kàttanam gis ngeen yàlla ci yéwénam guddi gu nekk yàlla day wàcc ba première asamaan guddi gu nekk laa wax guddi gu nekk mbokk yi ana sénégalais yi fii ci bi suufu baas bi ana sénégalais yi ñan ñoo fi dëkk sénégal ah benn nit moo fi dëkk sénégal benn ñaar ñett ñun ñëpp ay sénégalais lañ su Macky Sall waxoon guddi gu nekk dinaa nekk VDN ku ma fa fekk dinaa la may terrain nu ñuy def mbokk yi nu ñuy def dama laajte nu ñuy def dañuy def dañ fay dem dëkk fa dañuy njëkkante ji guddi gu nekk yàlla dina wàcc ba première asamaan guddi gu nekk xam ngeen yàlla bu wàccee ba ci asamaan si lu muy wax ku may woo ma wuyu ko ku may ñaan ma may ko ku may baalu ma baal ko guddi gu nekk yonent bi nee na yanzilu rabbana ila samai dunia kula layla lan la yàlla di def asamaan asamaanu première bii laa wax nag bii bii ñuy séen fii la yàlla di nekk fii lay wàcc wàccuwaayu boppam nu mu ko neexee moom yàlla noonu lay wàccee wàccuwaay goo xam ne kenn xamu ko nag ndax kenn da koo gisut ba mën a wax wàccuwaay woowu moom kenn moo ko xam nu muy wàccee lan lay wax ku may woo ma wuyu ko ku may ñaan ma may ko ku may baalu ma baal kon incha allah mbokk yi waxtaan wi ñu ngi koy arrêté fi ba ñu julli ji ba ñëwaat suñ ñëwee incha allah dinañ fi nekk ba deux heures ñu jël question yi 30 minutes parce que 3 heures damay defaat beneen conférence léegi léegi Pikine incha allah